am dem ci place yi bëree bëri ak génne gars yi fekk nañ fa seen kansiloo ñu leen taxawal McDonald nag fii ñu ñëw fekk fi Teli Boy Williams am bugg a waxtaan ak moom rek laaj ko naka la gisee sànni bi ak toon op yooyu noonu nuyu naa la. nuyu naa la. naka nga def. sant yàlla. Ah, good. Because at the end of the day I'm gonna be victorious. Mm. Yeah, I good. What am I expectation? Victory. Victory. Mm.

ഉപയോഗിച്ചുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുമൊക്കെ bare gox bi daf ma ñor suma yaay fii la dëkk suma pa suma dara lu ma gox man gox bi laa gis soo ko seetee ñu bari duñ dee génn di ñëw sànni si naka nga gisee loolu because ñu bari ñun buñ defee gëstu ñu bari soo waxee ñu la man duma def sànni bi costly important te man dama ne comme kan fu si day important parce que ñi ñoo toogal seen gox bi ñii ñoo fi nekk gox bi ñuy seen fu mu nekkal bi gox bi yóbbu ko sa kan fu waaw bokk na ci leneen nag xam nga su fekkee ne seetuñ bu baax ñi ñoo tànn ak xaw daf day indi seet baax day indi seet baax bu baax a baax tobligal hay nafa jo hay nafa indu ba du du defar gox bi defar gox bi defar ko bo nit ñi amul farlu mu sax pour ça taxawal daal ñoo compétent ñoo ñoo daw ñu nit ki ah, yow xam nga ñun dañ tuutal council ñun Gambie ñu tuutal council bu baax a baax a baax a baax because council du pour ñëw làkk ak sos làkk ak wolof da nga loolu with all due respect mhm. osan waaye dafa war am ay criteria yoo xam ne da nga ne bi high school waaye su ma mënee làkk angal rek mhm. angal maa làkk sax correct mhm. ma dem taxaw élection loolu man gis naa ñu bëri ñu ne ñu sànni dañu leen ñaan ñu nekk ci yeneen gox yi. ñu ne ah man ñun xaw ma leen sax. loolu baaxul ci dëkk bi. wax dëgg a qualifié ku nekk de waaye am na certain qualities yoo xam ne danga ko seet parce que suñ seetlee bu seetloo demal Sénégal fii fii Sénégal nga dem Casamance council soo tegut diplomate nga loo council su ma challenge yi fay mooy comme ni ma la ko waxee woon the first number one program bu ñoo bu ñoo wokk nexe yaa loolu number one program first télé bi ñoo wokk xe soo doon ñaax askan bi léegi nii nan nga am well at the moment moo leen ne ñu wutal ma maa nekk di wutal very good ñoom ñoo ba teg ñoom laay liggéey yi génn suñu buur. ñi ma déglu ñi ma déglu te buur tàngoor. di leen wax rek ne ñëw buur si ñëwee buur am solo ba am solo ñu ñëw buur mooy tax baat am ci gox spécialité bi ñu Gambie sa buur mooy sa baat. mën naa wax rek ne ñi ma wutal ñëpp ma ma taxawal ñëpp te xam ne daan naa leen nga xamante ne important am ñi ko bootal yëpp sant na leen ñi nga xamante tamit am ñoom nga bokkal di jongante kee gars yi tamit am képp ku si biir rek am ñu xam ne yàlla yow la tudd nga ñu defante ndànk rek su ko defee su politique politique jeex na ñu booloo liggéey waaye man li maa ñaax nit ba tey rek nañ génn a dem sànni ji parce que sa carte mooy sa carte te soo sànniwul doo mun a décider dara dara doo mun a wax dara lépp luy bon doo ci mun a contribuer génna leen dem leen ngeen sànni ji police station yi wéet nañ trop trop trop trop trop waaye nag li ko waral dinañ ko gën a gëstu dinañ seet lan a tax nit yi tamit comme ñu bari nuñ ko waxee am na ñu nga xam ngi taxaw nit yi am na ñu nga ñu ngi taxaw am mutuñ place bi am so loolu yëpp tamit jar naa seet waaye nit na tamit am ñu def sensibilisation bu mag nga xamante ne am nit yi dinañ génn di voté di xam ne lii nii du caaxaan di xam ne am lii nii affaire yu gox la di xam ne sa kansulo moo la taxawal mooy lijanti lépp luy xew si gox gi ak askan bi moo ko yóbbu si kansul bi so am na solo loolu nit yi génn am ngeen wóor am ñu ngi woon nag fii si McDonald am gis ngeen ko du ngeen dem different police station dinañ ngeen génne yu bëree bëri su ma yeneen naataangoo yi nag ñu ngi foofu noonu ca kombo geeg yooyu am ngeen topp a Gambian rek ba tey rek di leen wan ne am ñu ngi génnee fu nekk bàyyin fenn carton ba koy na gaa yaa ngi fa ngeen topp rek ñun suñ génnee rek am ñeneen tamit ñu ngi fa ngeen toppa ñooñu gis tamit foofu naka la ñoo sànnee parce que Gambia rëy na rëyut waaye tamit am mënuñ koo jeexal waaye dinañ taraay des suñ kéemtalaay kattan luñ ci mën a génnee ñu wan ko askan bi gis affaire si nu moo demee loolu am na solo lool jërë ngeen jëf seen xarit seen àndandoor Génjooro nekkaloon leen fi fii si Banjul am di leen indil yeneen ak yeneen des na ngeen topp ñu